am na ñu fiy jàng ñu fi ne ñoo xamante ni ñoom alxuraan rek lañuy jàng ak lu jëm ci seen wàllu diine waaye nekkuñu école muy ay ay tànk yoo xam ni dañ fiy jàngee ngir war fee mokkalee alxuraanul karim kon loolu foog naa ni day xalaat bu rafet boo xam ni képp koo xam ni am nga tut tànk war nga war nga cee eh, tàbbal sa doom ngir xale yi li fi doon def léegi koo gis xam ni loolu lu am njariñ la te bénéfice la ci ñoom ndax dina tax ñu mën a gën a xam seen diine ndax day doon loo xam ni daa mënut a ñàkk rawatina nag seen seen faratay jëmm nga xam ni day loo xam ni kenn ku nekk yow yaa ko war a xamal sa bopp ndax yow yaa ko war a mën a taxawee kenn du la ko defal. loolu nag moo tax ku uh, mel ni sëriñ uh, Xasan Diouf ak man mii di wax ak yéen muy Xaadim Sall ak ku ñuy wax Serigne Abdoulahad jaañ ñoom ñu am xalaat bi taxawal ko. te mu doon loo xam ni euh, dañuy ñaan ñëpp rek ñu jàpp ci ngir loolu mën a sotti ndax li ñu yitteel weesuwul lenn lu xale yi xam seen jàng alxuraan ba pare ñu yar leen yarub lislaam ba leneen lu mën di jàng ak lu mën di nekk yarub lislaam boobu jiitu ci ñoom kon loolu mooy solos li tax ñu ñu sos ko daara ji nag euh, daaw lañ ko tàmbalee woon eh, ren jii mooy ñaareel bi yoon bi ñuy def lu mel nii waaye xëy na màggal gi jub si moo tax dañuy bër looloo koy war ak école bi tijji ngir ñi nga xam ni dañ faa ñëw ngir jàng ngir eh, ci biir vacances yi waaye daara ji bis bu nu jógee ci màggal gi des na weddi des na ko ubbiwaat ndax day doon luy continuer ngir xale yi nga xam ne dañ faa nekk ngir ñu mën a jàng niñ ko tëralee nag weesuwul dafa am eh, ñetti catégorie yoo xam ni ñoo fay jàng mooy ñoo xam ne dañuy jàng féete fa di fa jàng xam ne du ñu dellu seen kër waaye fa lañ di féete mu am ñeneen ñoo xam ni dañuy yendu si rek ba ngoon ñu delluwaat seen kër ñooñu mu am ñeneen ñoo xam seen kër lañuy jóge di ñëw waaye duñ fa yendu dañuy dellu seen kër bu heure reprendre jotee ñu dellu siwaat kon ñetti façon tout tànk yooyu ñoom ñoo fa nekk waaye solo si rek mooy ñoom bu ñu ñëwee ñu jàngal leen li tax ñu sos daare ji daara ji nag yëmul ci loolu ndax xalaat bi ah, li ñu ci jublu mooy dafa war a nekk lu am continuité maanaam ñi nga xam ñoo fay nekk di jàng dañoo bëgg bis bu ñu demee ba toll ci at yoo xam ni war nañoo mën a dugg école ñu mën a am benn école boo xam modèle lay doon boo xam ni dana leen mën a wéyal programme bi ñu doon jàng ci daara ji ngir ñu mën a dabi seeni moroom yi nga xam ni jaaruñu woon ci daara ji te ñoom dinañ am ñaari mbir mooy jàng ak yar bu ñu jëlee ci daara ji alxuraan ak yar bu ñu jëlee ci daara ji ak njàng meneen ma nga xam ni seen i morom danañ ko def ca école yañ nekk kon mu nekk loo xam ni loolu xalaat bu rafet rafet la boo xam ni ñoo ngi ñaan kenn ku ci nekk nga jàpp ci te jàllale message bi ci ñeneen ñi nga xam ne xëy na jotuñu ko kon loolu moo nekkoon solos kàddu gi ñu doon yëkkati ngir leeral rek di sant yàlla bu baax a baax di jégalu ci kàddu yi wasalaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu al oustaz sëñ xaadim kàddu yi leer na kenn ku ci nekk yaakaar naa léegi war ngaa xam dëgg-dëgg lan mooy objectif bi tax ñu sos daara ji nga xam ne moom lañ taxawal ak yéene ji nga xam ne moom lañ ci yéene ngir amal ko ci kon loolu lépp dañuy ñaan sunu borom rek mottalil nu yéene jooju ba fa nu bëgg mu àggi sunu borom àggale ko fa bi barakati cheikh na cheikh Ahmadou Bamba. tàng na tanta Njaay dem nga ba ñëw waaw. xam nga lu sooyoon sama. Ah, sama néeg laa toog sànq ba léegi dégg la ngay wax ni nga bëree wax ayo foo demoon. man de damaa demoon sa kër tante Khady. yow yaay dox rek ngay def. sa doxu yaay ngay lijjanti yow mii war ngaa yem de. kuy togg añ laaj ko kuy togg. Ah, wax nga dëgg de waa xaar ma yónni sa kër tante Khady tey moom naaj bi dafa tàng lool. waaw pochette bi caaf xam. waaye lan la. tey la suñu natt bi di te ab téeméer doo nga nekk sama posé bi sa papa wàccegul tey moom dinañ ma alamaan loolu daa jël jaaxle daa jër te jaaxle sa kanam xaar waa kii fi mu jë waaye natt bi ñaata la 2000 francs loo sax loo ciy laaj am 5000 5000 jël si 2000 jox ma la sama 3000 dama kaa soxla dama cee bëgg jënd connexion. kii fu mu jëlee 5000 ah, waaye liggéey ñàkkam da ñàkkam da lekk liggéeyu ndeyam la liggéeyu ndey moom añum doom. Ndeye Mbaye. naam tanta. Ndeye Mbaye. Ndeye Mbaye bi xanaa woowuma ko. tante wax. yow ba ma la wooyoo ba léegi nga ne jënd sama kanam ma tante loo wax teel léegi nga dem joxal ma ko si tante ko mu nga wax ko jël si natt bi delloo ma li ci des. wante damaa sóor te damaa bëgg raxas ndab yi may yekkee yow léegi dama la yónni nga ci teg baat da nga yaakaar Amina mi naa ko yónni ci naaj bu tàng teel li nga dem jox ko si tante Kumba waaye man damaa xiif de añ ah, ba léegi ñëwagul man ah. xaaral ma ki nga yónni ñëw de damaa xiif laa wax ah xaaral ma dem xoolal rek ba xam añ bi ñëw naaw lu fi togg lu baax togg na añ lii lekk la yaay te nga añ lu naqari li ma koy lekkee ñam nga lii wax nga dëgg sax la ceeb bi dafa saf xorom moom moom du togg lu neex lu yàq neex ah bañ ko mel nii xaw ah, ma tegal ko fii am na benn bu ma mën ko boppam. waaye an sama weccat. ah man kat moom laa wax. dama nga yëggale ji añ. bu mu sab xorom nag te bu naaj. ay doomu jàmbur di mi ngi di doo ko bàyyi mu noppalu nag ah lii nii kat ëpp na. eh waxuma ak yow bu may waxatee xale ba nga dugg ci nag li nga xam. ah du ma jaaxale ndax ni nga def ndeyam ba mu jugee fi. bonjour. waaw na def. indalaay ana kër ga. bàyyi merci. Euh, Ndeye Mbaye dama doon laajte ba xam fii la dëkk. waaw fii la dëkk. Euh, mais est-ce que sa mère habite ici. <laughs> soxna si nga xaw a wax olof man sama njàng dafa soriwul moo tax. <laughs> pardon ma ne yaay Ndeye Mbaye ba xam fii la dëkk. waaw waaw fii la dëkk. mu fi. déedéet nekku fi nag. ay parents de la soxla. ah yaay Ndeye Mbaye de nekku fi waaye may tàntaam lan moo xew gaawe ma. ban tojaange la defati. dalal soxna si Ndeye Mbaye defu dal Ndeye Mbaye dafa nekk élève bu jàmbaare ci école bi léegi ñu am benn concours bu ñu doon def Ndeye Mbaye bokk ci ñu gagné concours bi léegi nag dañ ko yóbbu Canada jarul ngay tiit bul jaaxle bul def dara ndax ñoo jël lépp en soxna si mana mana maay maamam Ndeye Mbaye kaay. lii sa gi. eh madame. oui Ndeye Mbaye ça va. la. kañ nga fi ñëw. ñëw naa sànq ne. ça va. oui eh, ça xam nga mooy concours bi ñu doon def fan yii rek. da nga bokkoon ci résultat yi dafa jot a génn. léegi na. maaleykum salaam. tanta waaw ah, na def yaa ngi si jàmm gëj naa laa gis de wuy sama ah, ah. dama di ko yóbbu wuy sama sama nday lan moo dal sama doom lan la defati dama ñëw sama nday sama doom du dëgg du dëgg ba xam noonu la is mbokk yi yéen a ko gisandoo yéen a ko déggandoo sama tante jii tey dafa yoroon ñaari doom te yamalewu gis ngeen doomam jii tey li mu ko fayee ak man mii tey li ma yàlla fayee àdduna bi lu waay di def rek na doon lu baax. ci mbokk mii tey day def gàllankoor. di rafetlu seen teewaay fii leen nuyu seen tur ak seen sant tey nag dama bëggoon a ñëw wax ci tuuru waa daara yi ñoo ngi rafetlu seen teewaay fii yéen ñëpp ñoo ngi sant nag suñu ustaas yi ñu fi doon jàngal ku ci mel ne ustaas Daouda Diouf di sant spécialement nag suñu ustaas. ki nga xam ne féete nañu ci boor bu nekk di suñu papa muy Oustaz Assane Diouf amuñu sa fay nag qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sin man xataaka wa ahsin ila man wa xulil xaqa walaw ala bi sallallahu alayhi wa sin na nga jokk mën a ba nga xam ne dala dog wax sin ngay def baax ilaa man di ko jëmale ci nga xam ne incha allah def lu bon ilayka di ko jëmale ci yow waxulil xaq te nga dëgg wala wax ala yi maa ngi leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant ma bëggoon leen a baaxee benn bu gàtt rek boo xamante ne yonentu bekk wax naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xanin nafqi fi taami yonent bi dafa wax ne suñ la joxee aw ñam lum tàng-tàng na nga nekk ba mu sedd xamoo ba xam ab feebar am na bu nekk sa biir nga nga daal di ëf lekk gi feebar boobu daal di duggaat ci biir ndab li ñi ñi nga sukkal mën nañ kaa lekk daal di am feebar bi yéen mbokk jullit ne maa ngi leen di ñaax bu leen joxatee aw ñam lum tàng-tàng na ngeen nag ba mu sedd ngeen doog koo lekk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi buñ nee waa daara ji nag dongo yi ñoo ci ñoo ciy jiitu teg waajur yi leen fi indi ak jàngalekat yi ak ñi saytu daara ji ñu ngi leen nuyu baax di leen ziyaara kàddu gi sax mënoon naa ñàkk ndax Oustaz Khadim Sall mi nga xam ne yàlla dogal na mu jiite liggéey bi ndax mooy directeur bi ñun dañ ciy am pàcc buñ ci yor li mu ci wax doyoon na sëkk waaye ñun suñ kàddu xëy na kàddu yu cant ndax ñun xëy na ñoo doon gën a jonjoog jàngalekat yi ak xale yi euh, kon kàddu yu cant rek lay doon ñi nga xam ne daal doon nañ jàpp ci daara ji moo xam ñiy jàngale surtout ñooñu kenn amut seen fay sëñ Daawuda mii daaw ba ren day ñëw li lim ci daj dajuma ci lu na toll ak soxna ummi mais euh, nga xam ne macha allahu taala mu ngi koy naan yàlla daal mu am li muy wut ci njàng mi noppal nanu lool mook sëñ Daawuda rawatina euh, ak sëñ Seex Ousmane Ndiaye mu nekkoon ca daara jeey li ci am solo ñoom diggante bi gàtt na ndax xam nañ ne vacances daanaka balaa xale yee tege ci yoon rek daanaka mu jeex loolu rek ci xaw a kii <laughs> ndax xale yi xam nañ ne dañuy indiwaale ay yëf yu baree baree bari loolu moo ci gàttaay gi moom moom rek lañu ci jooy waaye wax dëgg yàlla teg nañ leen ci aw yoon woo xam ne buñ ko wàccu dana baax lool. tey yàlla xam na ne liñ ci daj ak def ko ci te ma seetlu ko te mën koo seere lu am solo la ci xale yi ci njàng mi ci yar bi ci yeegi yaakaar naa ñi ñëw népp gis nañ te loolu lépp ñoom ñoo ko ci def. ñu ngi sant bu baax itam ñi nga xam ne ay waajuru dongo lañ comme ni ko suñu xaadim waxee faaw ñu tudd ci euh, waa kër sëñ Sall gis naa leen di yàlla di nuyu sëñ Sall bu baax a baax di yóbban ci nuyoo euh, ndax confiance dafa dafa doy waar waaye am na soxna soo xam ne faw ñu tudd ko euh, taalif biñ ci def kenn ku ne xam ne daw na yaram lool waaye liggéeyam la yaakaar naa daara ji daaraam ndax daaw biñ koy tàmbali ma xëy booba daanaka yéene rek lañ am ñun waaye bi dama jaar ci kër ga ne ko fekk bis bi ñu waxoon ne la tàmbali daanaka boobu amaguñu sax ñu bari yaakaar naa kenn rek lañu amoon mu mu bind muy euh, sëñ siidu naa kam yi moom itam daanaka daaw ñëwoon na ren ñëwoon na euh, mu ma jaar ci moom ne ko de dañoo ubbi daara wax ko ñu toog waxtaan lu bare bare bare ci ab yar ak jàngale mu daal di jël dara jox ma ne ma ma gàntal mu ne ma dama bëgg mu barkeel mën naa wax ne li ci jëkk dem aw ñaqama euh, daa di ci jël ak njabootam yépp itam daa di indi boole ci njabootu suñu saal te lépp benn la kon loolu ay taxawaayam fii daaw moo tax ñu ñu ñu duppee ko bis tere nit noonu rek la demee ndax kon daara ji mën nañoo wax ne daaraama ndax yéeneem ak taxawaayam euh, ak ma yal na ko yàlla daal te am nañ ci yaakaar lool waaye ñaan du doy bu ñaan doon doy kenn du ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nañ koy ñaanal te xam ne fee mu nekk njort nañ ne moo ko gënal fii moom ñun kay ñoo ñoo xamagut te yàlla nañ yàlla dimb doole dimbali. Euh, di santit bu baax a baax sëñ fàllu busu Assane mii nga xam ne kilifa gu mag la surtout ci sañ Mbacke Bousso te ko kenn xam ko jiite it école bu mag doon ab yar ab yar ab yarekat bu mag ab jàngalekat bu mag kooku nag bu jëlee njabootam jox la ko kooku lu rëy wax dëgg yàlla. ñi fi nekk ñëpp dem sëñ Sidna Ka mi daana nee nañ daana jàngale kër sëñ Soy ñoom ñëpp di parents d'élèves yi bu ñu tuddee ñooñu rek tudd nañ ñu ci ñëpp li ci des ak leeral rek la xam ngeen ne xale yi ñëpp mënuñoo jàng fii li ñu doon jàng ci vacances wax dëgg yàlla ñii danañ jàng ñii duñ jàng ñii dañ feeñ ñii duñ waaye jubluwuñoon ñëpp tari ñëpp wane li ñu def dañoo jubluwoon rek ne daara ji daal bi ñu fi nekkee am na lu ñu fi doon def loolu rek la moo tax ñu ñu defale ko noonu li may wax nag ci turu waajur yi laa koy wax man may kenn ci waajur yi ñoom ay kàddu yoo xam dañ ko yëkkati woon jaarale ko ci man man mi nga xëy maa ci gën a maa ci gën a xeebu ñoom nag liñ wax mat na rafet na la ci jëkk mooy ñi ngi ñaan Cheikh moo Mourtala sunu borom dolli ay leeram te taas ñu ci barkeem moom mi nga xam ne pàkk bu tedd bii moo ko fi taxawaloon jëmbat fi li fi ne la ca topp nag mooy ay kàddu la yoo xam ne dañoo wax ne naa ko yëkkati teg ko ci yi sëriñ Assane Diouf imam mu jàll la ko ci fu fu fu mu war a àgg rek mu àggale ko fa la ci jiitu sëriñ euh, Assane waajur yi nee nañu euh, am na ñu ngi yëkkati ab siyaare akum nuyoo bu tedd nga jo nga jottali ko sëriñ maam Mor moom Cheikhul Mourtala ak karakam yëpp ak sëriñ Saliou ak ak sëriñ Saliou mi nga xam ne jëwrin la fii nekkal ko fi euh, la ca topp mooy yéen ñi nga xam ne yéen ñu feet ci njaboot gi muy sëriñ Assane Diouf sëriñ sëriñ Assane Diouf ak sëriñ Xaadim Sall ak jàngalekat yi ngeen ko àndal yëpp waajur yi daal amee leen cant goo xam ne nii am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem mënuñu leen a fay ndax diggante doom ak waajur waajur dafa am ndénka ndénkaane sun sun borom loo xam ne nii moo ko daf ko doxale ci diggante doom ak waajur ñu ñun waajur yi nga xam ne nag li nga xam ne mënuñu ko ci nge ku ci mënal kooku day amul ak payam ba tax na lépp loo xam ne jëf nañ ko mu dox seen digg ak ñoom seen digg ak yéen loolu day maslaa la waaye du pay euh, yàlla mi nga xam ne moo am pay daal yàlla leen fay ba liggéey biit fu ngeen ko bëgg a àggal rek ngeen àggale ko fa suñ xel dal na suñ xol sedd na guy ndax ki nga xam ne moom moo lay yoral sa doom di la ko ja ko alxuraan di ko xamal diine yar ko yee kooku defal na la ci sa njaboot loo xam ne nii yàlla rek moo am pay te yàlla rek moo tax ngeen def ak jëmi Cheikh Mamadou Mourtala mi nga xam ne moom moo tax moo taxawaloon pàkk bii dénkaane woon na liggéey bi na wéy ba tax na kon loolu moom yéen a ngi ci ñun daal cant daal moom ñu ngi leen sant nañ leen bu baax a baax a baax a baax. kon bokki taalibe yi fi teew bokki jullit yi ñoo ngi yëkk suñu kàddu muy kàddu nuyoo cant ak ndokkeel mbooleem. jullit yi waaye ndokkeel mboolem taalibe yi ci weeru màgg wi ñu nekk ak bis yi ñuy sënt muy fukki fan yeeg juróom-ñett ñu ñaan ñu àgg ceeg jàmm ak salaam di bu baax nag ci bokk giñ ci bokk ndax waruñu woon a jël kàddu sax ndax suñ ka li mu wax daanaka doy na sëkk ci turu parents d'élèves yi ak ñi nga xam seeni doom ñu ngi fiy jànge mënuñu cee wax lu weesu loolu muy kàddu cant goo xam ameel nañ ko daara ji teg ko ci loxol imam sëriñ assan bu mu jottali ko sëñ Xaalif ak sëñ Abdoulaye Diagne ak oustaz Daouda oustaz Cheikh Ousmane ak yeneen jàngalekat yi nga soxla yi nga xam ne tam ñu ngi ci daara ji ji bokk ci yar bi ak njàngale bi lii nag defe naa dafay initiative bu am solo ndax xam ngeen ne àdduna lim laaj mooy lu jamonoy doxe ngay dox ànd ak moom waaye nag fexe ba yow du la tàqaleeg say melokaan du la tàqaleeg say cëslaay du la yàqal dem sa diine xam ngeen ne li ngeen def ecole yu bare bari dañ koy def li ñuy wax colonie de vacances bu école tëjee ñu jël xale yi dajal leen yóbbu leen ci benn barab tey leen fu mat weer wala ñaari weer am lu ñuy def ñoom waaye ñooñu bu ñu ne la ñuy def mooy tëgg ak fecc way rek la ñuy jàngal xale yi bu ñu nee foofu day mel ne kon ñoom la def yàqu la gën a tudd ci ci ci ci defar te moo ne lu mel nii ba amul da nga gis jullit boo xam dana du mën a yor doomam ci vacances yi day obligé dem jël doom yóbbu ko ci colonie yooyu bu ko defee lam ci doon séentu ko ci mën a jëlee moo tax bu amee ay bokki jullit bokki taalibe yoo xam am nañ xalaat bu toll ne bii bëgg bu vacance jotee ñu tuddee ko daara vacance donte day continuer bu école tëjee tam waaye ñu yaatal ko ubbi ci daara vacance bañ ko tuddee sax colonie waaye jël baatu daara tuddee ko daara vacance te muy soppi muy muy firi li colonie firi ñu saytu ci xale yi topp leen diiru école tëj ñu topp leen def ci ñoom yokk seen i jikko seen melokaan yu baax yokk seen man-man ci wàllu xam-xam bi yokk seen man-man ci wàllu doxalin wi yee leen ci fànn yu baree bari loolu defe naa lu am solo loo xam ne nii féete ngeen ci wet xam ne nii ñëpp a leen ciy sant te di leen ci ñaanal te ku nekk xam ne ne xale dafa jafe yoon ku nekk xam ne na ñun ci lañ yëngut ñëpp ci bari ci lañ yëngut waaye boo amee doom benn doom dong boo ko amoon sa kër boo nekk moom ba ngoon jot bootul mën nga ko jépp ci diggante bi kon ki nga ko jox bàyyi ko moom ay weer wala ñaari weer wala benn weer muy taxaw mu guddeeg bëccëg ak li xale def bari bang bangi xale yu bari yëpp mu di ko muñal te ku gis ni xale yi tax te Oustaz Assane da nga xam ne ñoom tiitaluñ leen moom xoxotaluñ leen waaye am na fu ñu leen teg kon loolu rek tegtal la ci man tam wax dëgg ni ko imaam Assane waxee xëy nañ yëngatu ci jàng ak jàngale waaye nag ki yëngu ci mbir ku nekk keneen bu cay yëngut da nga xam ba xam kii doy na wala doyut moo tax melokaan ñu gis ci yéen ak seen doxin moo tax bañ fi indee xale yi ba léegi ñu ngi fi door a jaaraat tey ñu fi door a jaaraat te amuñ lan lañ ci tiitam te biñ ñëwee li ma gis xale yi njëkk koo def rek doy nam xel xëy na du ma ci àgg waaye daal ñi ma fi indi moom li ma gis ñu njëkk koo def ma accès maanaam barab bi loolu rek maanaam yokk na sama xel mu daal ci ñoom ci ne teg ngeen leen ci aw yoon loolu kon amee nañu kàddu cant ci sama turu bopp ak turu ñoom mboole ñi nga xam ñoom laa seqal njaboot gi ak turu parents d'élèves ni ko suñ ko waxee léegi li ñu def ci yéen bu ngeen demee ngeen tas ko ci seeni morom te jikkoog ci yéen fii itam ngeen fexe ba bu ngeen demee kër gi ngeen garde ko ba bu déwénee bu ngeen delsee fii li suñu asan doon wax léegi ne xale bu ñëwee dañu àndaale bang bang yu bare bari yéen bu ngeen ñëwaatee ñu bañ a sonnaat ci yéen coono boobu ndax bu fekkee dañoo def ba pare ngeen dem fàttewaat ko nekkaat leen ba déwén ñu day mel ne liggéey la boo xam ne ni du am njariñ kon li ngeen nekk ay tu tànk lépp li ngeen jàngal yaakaar naa ne bu ngeen demee kër ngeen ko bàyyi xel melokaan bu ngeen mel fii ngeen fexe bu ngeen demee ca koñ ba ngeen continuer mel noonu col gu jot muur seen i cër di wax ndànk di fonk seen i wajur fonk seen jaamu yàlla di appliquer li ngeen jàng loolu bu ngeen ko defee ay royteef ngeen di doon fa ngeen nekk te na xale yi baree bari ci seen i morom la ñuy copier ni ngeen mel rek bu ngeen demee seen morom yi koñ ba ci yéen la ñuy copier mel noonu te bu ëllëgee daañu sawar fekk si leen ci fi ngeen newoon ba mel nii kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di yemale suñu kàddu foofu di la sant oustaz Daouda ndax li nga wax léegi moom doonatoo élève léegi zamil nga oustaz nga léegi moo tax fi nekk nii nax na zumala léegi nekkatuñ diggante sëriñ ak bi ndax gars yi nañ garab yam ci ko la ñu fekkante kon ñu ngi lay dalal jàmm yàgg si Ousmane ci majaal mi di leen gën a soññ rek ngeen xam du majaal mi yomb nag waaye comme tànn ngeen ko ba xas ci dugg rek ngeen jaayante ko lépp lu mu laaj ngeen def ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu